bismillahi rahmaani rahim danaa ne cees jubal jooyanti saw saw këyit joori bayit seex muntaxa muy lu gaal gaa gaal gaa ku bëgg seex muntaxa mooy gaal gi ku soobu samaama man moo la defar def la mbërëm seex muntaxa bu kenn lijjanti mbiram seex muntaxa yaa di borom daaru minan sa donga yaa ngi nii dem bakke xëy si nan yi jóg ci bopp dem ci ndigg yi seex muntaxa won nanu yoon ñu jëkk yaa seex muntaxa yaa jara way ne yaay saxaal koowoo mu ñëw woowut mu ñëw moyal seex muntaxaa giñ naa ni yaa samaan moo man ñi fii moo man ñëfee jaaraa di maam dooma ma tax summi sun tubay njaam moo nu solal moo nu duyal sun gaali njaam ku ma wuy seex muntaxaa yaa am ngërëm teem dërëm yaay Mustapha waddu ji leen mu sooru leen sama ma ngi ahmadu naare kadi góor waddu musoor leen bu ngeeni góor sama ma ngi naare kadi góor liggéey bu rëy yaa ko jafal fa poroxaan seex danaa la way ba coroxaan seex muntaxa yaanu musal ci ñàlluwa yaanu xamal yaanu xamal ci àlluwa sam kem amut ci gaay tey ak yi seex muntaxa bamba la fal sigil te wéy na yàlla fal jëf jure ji ngay jëfal faqir ak jirim yi yaayoo njukkal na yàlla fay sa jëf jure yi ngay jëfal faqir yi ak jirim yi yaayoo njukkal def naa la ndey seex muntaxa def naa la bàyyi nag ma musal nag ma jafal ba say sa baay la ndey Seex Muntaxa nag ma musal nag ma jafal ba say sa baay naa la ndey dem Seex Muntaxa nag ma musal nag ma jafal ba say sa ma doon fi sëb géwal Samba Mbayaan fi ak jubak mbir yu jubak yu fi sipaan yaa maandu yaa rafet tegante yaa tabe yaa di wurus raxoo përëm yaa kadabe yaa maandu yaa rafet tegante yaa tabe yaa di wurus raxoo përëm yaa kadabe sii di gërëm baara gërëm saaliw gërëm ñëpp gërëm seex muntaxa damay gërëm sii di gërëm saaliw gërëm ñëpp a gërëm seen muntaga damay gërëm moo neexiree seex muntaxa borom mbégam yónneen ba ak gaay gëm moo neexiree ba ak gaay sëriñ bi ñëpp gëm lu mën xew danaa fi mbay jaxate sigil te way yaa di satu waa njaxate seex muntaxa de yaa ngi nii ñun ñëpp ngi fajal ñu wér cër yaa ngi nii sun lépp a ngi yayoo nga aw tagg ko bañ ma bakk la yaari jëf yaatu li tax ma bakk la yayoo nga aw tagg ko bañ ma bakk yaari jëf yaatu li tax ma bakk la yoonu murit ay ca ñu kañ delloo njukkal seex muntaxa ginnaa ne yaayayoo sukkal yoonu murit ay ca ñu kañ delloo njukkal seex muntaxa ñu kan delloo ñu kan seex muntaxa ginnaana yaayo sukal rum siyaarataloo fa tarbaxu masaarahu naalawlan wa tafraxu xubbaka fi munqidina xawluka fi sayidina ahmadina kenn nga fi raayta taqdiman lahu ala alwara fasirtu xaadiman lahu an alwara yow sa xoro seex muntaxaate si suloo yow rëyuloo yaatu nga yow añaanuloo yow sa nga yow añaanuloo dekkal nga sunna yee salaat nga seex muntaxa ko xam cëram ragal nga yàlla yow mosoo laali xërëm fonk nga bamba yow mu rang lay ngërëm seex muntaxa yeyoo nga yow ñu tagg la yeyoo nga it ñu way la tey te bakk la yàggal te way set nga weles ay sa bur sama ma ngi gàccel na yow dem ba gëri alaaji gaawaana woyante bañ mu lóor taxaw lu fii di sant tey sakku sa muur te lay dagaan defal ñu sax ci ak murit te dooni saadiqin musal ñu ci marit te lay dagaan defal ñu sax ci ak murit te dooni saadiqin musal ñu ci marit subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun alal mursaliin wal hamdulillaahi rabbil aalamiin barke borom Tuubaa